kenn waxatu ko bari na aar bi ñi si jigéen ñëpp yaa yaa leen mag mun ngaa xalaat mën nga ma tontu beneen ton bu dul ton bi wala nga mën a tontu beneen mayonnaise bu dul mayonnaise bi wala nga mën tontu ci beneen ñebe ba ñebe bi xam nga ton dafa am tontu ak ñebe ak mayonnaise léegi dama lay wax ma tontu la tuuti rek te nga jéggal ma te nag soo soo fay waatee du ma ak yow a koor gi la parce que koor gi laa lay bàyyal man moom nag laa xam ni te laa xam ne maa tontu. soo ko xamoon bu njëblee dinaa tontu mais tey bu takk ci takk ci xam ne Pawlish wax expliqué ma xaw ma ne sax dafa mel ne da ngaa tontu ma tontu bu sali saa nga tontu dégg na dafa mel ne da ngaa tontu en plus da ngaa reposé ba wax bu ñaaw léegi nag man du ma la wax ju ñaaw dama lay dolli ñaari message Fatou sama yaay nga sama yaay nga looy bañ ci tani tani dara nekku ci soo xewee di tani kay wàcc nga. boo xewee di tane ba wàcc nga parce que boobu rab nga rab la ngay tane te yow da gis boo tanee bu man man boo boo tanee parce que yow ñi nga dëkkal man ñoo ma ciblé ne Fatou day tani ñi nga dëkkal ñoo ma ciblé ne ma Pawlish Fatou Laobé day tani tani dana nekk ci yaay boy lu nekk ci tani dégg naa sa léegi tanetoo tanetoo da wure ak tam ak ooyo lu tax loolu gën a metti boo boo boo xeewee bay ooyo kay nga xam ne kon sa sa xeewi sa xeewi sa yi dafa metti yaay booy mais jarul nga wax ñaaw suñu borom ay fale suñu borom ay xeewil yàllaa la xeewil da ngay nangu yàllaa la mais li nga dem nii tax na ma ma gën man ma dinaa gën a am fit xam ne xeewi dafa metti xeewi dafa metti lool fa ni nga reposé nii xam naa ne xeewi metti na ni nga reposé nii wax ba wax ba sa dënn yëpp xam naa ne xeewi metti na yaay yaay man bu dee doomu tuur daal di doomu yoon di doomu yoon doomu tulaat di yoon man man man man mi nga xam ne suñu borom moo may xool ni war a xeewee di xeewaal yaa yaa xam naa ne xeew bi metti na trop yaa na gën a xeew bi na nga gën a xeew bi nag sérieusement yaa na nga gën a xeew bi parce que ni nga xeew bari post wax wax wax ci ju ñaaw yaay yaay pourtant nag yow comme yaay yaay doo xewaat de mu nga tàkk nag ci Pawlish mu nga wax ci Pawlish tàkk ci Pawlish c'est normal daal tàkk mais yaay nag ah nga xewaat ma yaakaar parce que def naa def naa jalis euh, bu ne pour nga xewaat parce que parce que ku mën a way xeewi nag tey da ngaa mën a way loolu waaye suñu mooy xewal doomu aadama da nga il faut nga man du ma xeewi que wayu ma waxi dof laay wax c'est que soo gisee ma gën leen intelligent man damaa jël way soo na way xeewi naa bu yàgg man a way dafa neex man miy dotom te wax seetut xaw ma lu ma war a way su ma ne su ma lu ma way fàttewaat naa ko man moo xam ne man du ma artiste bi way man xaamal dafa artiste waxi dof waxi dof du xeewi ci àdduna waxi dof moo dul ci àdduna parce que waxi dof laay wax waxi bu yàlla ànd mu nga wax waxi dof te yàlla du ci ànd waxi dof suñu borom da ci ànd di nuyu samay xarit ñoom jiw aleyka salaam maa leen wax Omar bul Xataab Seydina Aline Hmm? maa leen baalu ja di di di di di di kontaan di sama xarit bi muy gën gi mu nekk muy Seydina Muhammad maa ngi leen di ñaanal weer bi muy nekk si weer bu gën ci weer yi weer woo xam ne muy weeru Ramadan weer boo xam ne weeru ngëneel la yal na ko suñu yal naa gën a xewaat parce que lii nga def nii gën na maa yokk moo defee pour ma war a xewaat faatu ay faatu arrêté fay xew faatu arrêté fay xew yi xew. faatu arrêté dafa xew yi xew gën a métti ci àdduna lu la waay wax nga mel bu la waxee sa sa make up bi te yaay xanaa ba ngay ñëw kii moo la make up sa make up bi dafa mel faare te yow ba ngay wax ak ma dangaa solo ba jekk pour affronter dangaa solo ba jekk dégg naa lu bula la sol sol lu bula takk takk say ngalam pour affronter Pawlish lii danga ko waajoon yaay jaru waaj man waxee dof laay wax xanaa soo loo wax te man loo te loo wax Sénégalais ñoo lay tontu parce que Sénégalais mën nañ bëgg ci xam fan nga fan nga fan nga ñàkkee sànq da nga tontu wax ci wax wax bu méchant Sénégalais ñoo la tontu yaay léegi nag dégg naa bàyyi nga tànni dégg naa bàyyi nga tànni léegi da ngay tam da ngay tam ba pare di wuure xale yi xamuñu wuure mais mag ñi xam nañ wuure da ngay wuure da ngaa xëy bay wuure ba pare di planique di def oyo hmm? léegi nag